Je pense que dañuy tàmbalee par nuyu le manager de Mr Cash parce que c'est l'autorité artistique mooy manageru artiste bi après ñu nuyu artiste bi Mr Cash taxaw ci moom tuuti balaa may ñëw ci Chanel parce que artiste boo am talent la et puis man su ma ko xoolee muy kiikee sama yaram day daw ko tu vois am na bëri na lu muy def parce que dañuy dem international souvent suñu demee gars yi di ñu laaj kii kan la kii kan la quoi parce que am na flow bindam am na maturité li muy def mën na ko et am na sañ-sañ ci li muy def quoi au-delà de l'artistique après artistique bi bu bu bu jeexee artistique bi bu jeexee da gis ne humainement aussi nit ku am yar la parce que boo ko gisee sur scène ak boo ko gisul sur scène da xam ne bokk bokkul personne bi ak personnage bi bokkul dafa yaru tellement que doo defe ne sax kii mooy moo doon teg baari yi quoi TRG lu tax ñu créé ko lii rek la c'est de de la lumière ci artistes yi fexe ba waxuma ñu ñu ràññee ñu gën leen a ràññee ñu ñu xàmmee ba pare ñu gën leen a xàmmee il faut que ñu may doole hip hop joxaat ko lettre de noblesse am moo tax ñu génne signature yi génne ko ci mbedd mi delloo mbedd mi li mu moom parce que hip hop mbiru mbedd la dañ daan gis bu ñu organiser concert wala projet bu mënti doon ñu organiser cérémonie de signature bi invité presse bi invité ñëpp bi il a fallu ñu dem ci artiste bi koñam dëkkam région am bu ci même buntu këram pour won ko jëmmal ko jëmmal ko liggéeyam bi muy def ci kanamu ay xaritam ay fansam famem xam nga loolu dafa am solo ci li ñuy def projet bi taaru rap Galsen la tudd mbir nag boo ko nekk boo ci nekkee mu am cinquante ans ci adduna bi yëpp 1973 ba 2023 àdduna bi yëpp di ko fete ci biir cinquante ans yooyu Sénégal mën na ci réclamer plus de trente quatre ans ou trente cinq ans d' bi rap commencé Sénégal bi mu amee Sénégal ba tey lu bari ñu koy def muy muy jéego mu nekk une famille je pense que day jaadu mu am prise de risque par rapport au promoteur ñuy créer di innover di indi ay événement ak ay concert wala ay festival yu am doole dañuy wër àdduna fu nekk la ñuy dem gis nañ li xew bitim réew gis nañ seen hip hop ni mu amee doole suñu bëggee hip hop Sénégal développé wu na il faut que mu am ay acteurs et que nit ñi ba nekk ay spectateurs acteur mooy ñun ñëpp ñu bokk dara di ko fight pour mu jëm ci kanam tey moom sasam mooy jël micro yéeg sur scène way manager bi dafa am sas ci lu ko waral ci mu jaay produit bi jaay artiste bi ñun producteurs yi dañu am aussi suñu wàll ci naka la ñuy def ba suñu écosystème wala suñu industrie am doole. juróom ñaar la ñu nekk donc yéen yéenay dooleem yéen waa parcelle ak waa mbuur yéen ko war a mën a jàppale. parce que Dakar Arena du caaxaan salle boo xam ne c'est plus de seize mille dix sept mille voire même dix huit mille places il faut de la mobilisation ngeen gunge ko il aura besoin de quand il mu sentir ne public mi ngi ci ginnaaw di ko show love di ko may doole di ko pousse pour mu dem ci kanam du ma téye micro bi lu yàgg mais xam leen ne am ngeen artiste bu mën rap bu am talent soxla na mbooloo parce que game bi léegi soo amul mbooloo doo bokk parce que mbooloo mooy lépp foofu mu jëm nekk gu fa tête d'affiche ki ëpp mbooloo biir Dakar Arena yaay nekk tête d'affiche parce que artiste bu fa indi deux mille cinq cent wala trois mille personnes dama koy wax fu ma dem kooku mënuñu ko jouer loo premier wala deuxième wala troisième position parce que bu jouer génn mbooloom génn topp ko donc yéen su ngeen bëggee mu am ndam da ngeen koy soutenir jàppale ko ci mobilisation bi gunge ko ba bu ñëwee biir Dakar Arena du fa wéet. waaw maa su ma limee damay maa ngi nuyu waa koñ bi maa ngi nuyu Baye Fall yi maa ngi nuyu Boy yi maa ngi nuyu ñëpp sama gars yi maa ngi bëgg maa ngi gis ñëpp waaw maa ngi koñ la fii sama koñ la voilà ñi ñu ngi fi doog a ñëw kii ku si mel ni Tafa maa ngi koy nuyu waaw di ko wax na ñoo ngi rafetlu projet bi et voilà on est à 100 pour cent dedans donc muy TRG TRG moom mooy waaw taaru rap galsen donc taaru rap galsen mënul def lu dul taaru. incha allah wala mënul def lu dul taaru wala waaw taaru rab gaal seen loolu waaw waaye tey dafa def yàlla dafa def ni soo demee ba tudd tey rab gaal seen da ngay tudd Mr Cash wala du dëgg soo tuddee rab gaal seen ngay tudd Mr wala du dëgg gaa xam nañ li may wax gaa xam nañ li may wax waa koñ bi laa waxal xam nañ xam nga fekkee nañ fekkee nañ affaire bu bëri sunu premier concert fii lañ ko defoon si terrain bi Euh, gars yi ñëwoon nañ voilà on s'est bien amusé waaw kontaanoon nañ si trop soo leen ma indiwaatee sama koñ def loo ma fi genre affaire yi nii day nekk loo xamante ne daf may daf may ay affaire quoi fii laay footballé chaque dimanche et voilà maire yi xam nañ ma paa xam nañ ma xam naa maire yi xam naa paa donc fii sama fief la mais tamit damay woo waa Mbour di leen wax ne seen doom laa te xam nañ ma ñoom tamit voilà ñoom leen di woo di leen wax ne seen doom mooy mooy joué le 23 décembre incha allah Dakar Arena voilà te ku xam ne sa Cage xam nga ne dama si def lu ma mën incha allah voilà voilà. amis gaa seen ari yóbbi teg seen kaw ni ko dama ko mokkal ni ko dama ko suus ni ko dama ko mokkal ni ko dama ko suul booy cere ba xajam suuf laa ci def ma ngi nii pare fii booy suul da ngay teg nekkul yow laaj nit ndax yokkuma leneen te nga yam waaye mën nga bëgg diw te sa bopp nga may nees Diop kat fa mu